jàmbaar ju daan jàmbaar fàq tëdd combattant ba éliminé nañ ko dëkk baa ngi riir dëkk baa ngay yuuxu ci kër yi dëkk baa ngay fëgg pat yi dëkk baa au moins yooyu ay forme de lutte la mais qui ne dit rien consent bu ñu éliminé Sonko ñëpp toog nii nii Sénégal ne salaw boobu léegi maa ngi woote ñu ne fii dara amu fi dara comme si Sonko ne représentait absolument rien am na sax ñu ko commencé suul

barke alxuraan li nekk ci xolu Sonko bu doon moom ngeen di xaar mu wax bu waxee tey doo leen toog seen biir kër yi Sonko waxul de Sonko waxul de ñu koy gis kus néew waxtaani ndaw lay wax ak ñoom ñu dem seen yoon Sonko waxul bu dee moom ngeen di xaar rek mu wax ni dëgg ngeen dégg ko physiquement nang doo leen ko am nit mooy ñëw rek ne Sonko joxe na bii nangam Sonko joxe na bee nangam jeex na gaa yi ñëw wax yooyu dafa bëri ay stratégie yuñ mun a xeexee xëy na gars yi seen xel yi duñ fa dem waaye li am tey ku mu naqariwul doo gor ku mu naqariwul bëggoo sa réew parce que ni Macky sàll def Khalifa sàll ni Macky sàll def ki nga xam ne mooy Karim Wade même chose la Macky Sall def Ousmane Sonko muy lu ñu metti nag lu ñu metti parce que dañ ko xeex

mais boobu c'était en deux mille vingt et un deux mille ba ma leen di wax waxu Badio Camara ñu bëri ñëw nañ di ma laaj Badio Camara boobu bal bi sëñ Basirou Basirou Gueye ko yore woon Ousmane Sonko lañ def bal dugal ko ci terrain bi di jouer ak moom Serigne Basirou Gueye lañ moo yoroon bal bi ba ma leen di wax ne bal bi dina mujj ci tànk Badio Camara mu dugal ko ci camp yi bal bi dina mujj ci tànk Badio Camara mu du gars yi naan ma kan mooy Badio Camara kan mooy Badio Camara man naa leen lii stratégie la jeu d' escalier lañ ko def escalier par escalier Sénégal jóg leen taakale leen sinon gars yi dinañ dugal bal bi loolu bu ma ko wax kañ la. dina boobu bal bi mi ngi mi ngi ci loxoy Serigne Bassirou Gueye mu paas ko Maham jàllo Maham jàllo jox ay Ibrahima Bakhoum mu paas ko mu Mamadou Seck mu Seck paas ko Abdou Karim Diop. Abdou Karim Diop parce que Hamadi juuf ba tey ji mu mujj ci Badio Camara mu dóor ko ci biir camp yi mu jeex marché ba tas ñi nga xam ne ay cent pour cent Ousmane Sonko lañ di xool di ngi xool leneen am dama ne dama ne am na ñoo xam ne dañoo démiche pare nañ ñoom nee nañ Ousmane Sonko ou rien gang boo gis loolu la am na ñoo xam ne Ousmane Sonko ou rien lañ wax kenn mënu leen forcer keneen am na ñoo xam ne nee nañ duñ sànni fenn seen carte Ousmane Sonko lañ gëm Ousmane Sonko la du Ousmane duñ sànni kenn carte am am nañ ñoom ñu wax né ñom paré nañ ci parce que ñom Ousmane Sonko lañ jox sen confiance té kenn mënu leen forcer am nañ carte mais gars yi ñi bëgg a dem ak Macky Sall chaque jour ci affaire banditisme légui demandez-vous plus de 100 000 personnes yo xamni ni ñi nekkuñu ci fichier électoral bi amna ñu bëri commencé nañ di duggal gis ñu sen tour ci fichier électoral bi légui gars yi ñi bëgg a dem ak Macky Sall plus de 100 000 sénégalais newuñu ci fichier électoral ñi wax gens nañ dem nañ continuer dem c'est que c'est des jeunes qui doog ñew and ak fugg ñëw fekk ñu suñu combat bi mais maîtriser wuñ dara ci combat bi maîtriser wuñ tous ci combat bi te de nañ bopp loolu wax luñu dégg nañ bop fokk ni ñom sen main may mbalax fekk maîtriser wuñ dara ci politique bi parce que dañuy a yegg amuñu expérience ci ci c'est une expérience euh, c'est des fougues. c'est bien ils sont intéressants mais c'est des fougueux comme dara ci combat bi on a 10 ans lañ amoon wala 12 ans 12 ans moo yokk ci ñu ans wala nangam ak nangam xaw wala internet am di mais dara ci combat nan ngay bëgg élection ci benn waay bu choisir ay nitam yu war a dem ci élection yi ñu waxante dara nit yi mu am plus de dix mille xaw ma cent mille sénégalais yoo xam ni dañoo inscrire te gisuñu seen tour ci fichier électoral bi après nga bu ku waaj waaj yore fichier électoral boo xam ni mun nga vérifier yow ba xam yaa ngi fa booy yee génn ku nekk naan ne nu ma nekkuma ci fichier électoral pourtant ñi ngi bind dañoo war a voter Les con quoi que ban fichier le fichier électoral en 2017 le Moi, il boum gagné 2019. Fichier électoral 2017, boum gagné 2019. Moudjel lolo. Parce que quand nous avons inscrire yop, ay Ousmane Sonko. Nous avons ni nous avons inscrire yop, ay jeunes, et Ousmane Sonko. Nous devons euh, prendre en compte ñu mujjee inscrire yëpp mu mujj leen prendre en compte parce que dafa jàpp ni ñii ñëpp ay ñu bees lañ ñoo xam ni Ousmane Sonko moo leen indi moo tax ñu inscrire mooy ñi ñi ñun ñii ñu doon wax naan dem leen ngeen inscrire dem ngeen jëli seen kii ñooñu lañ xam ne ñooñu ñëpp ñu mujj ñëpp ay Ousmane Sonko lañ moo ñu dagg foofu yëpp sànnee na la nekkuñu ci fichier bi ñu jël ñi yàgg ñi mooy fichier bu mu gagné deux mille dix neuf deux mille dix sept bi mu gagné ko

mooy élément Sonko yëpp ñu mujjee ñëw ñoo ñu ñëpp daf leen fa dindi ñu ci léegi nga bëgg a dem ak kooku ci ay élection nii mu éliminer sa leader nga nga commencé wëri feneen di jafandu feneen yaakaar chaque jour sa rafet njort sa bopp bi rek ne non man maay dama koy changé dama koy changé ñëpp bëgg na changement mais da il faut ñu préparer wu ñu tam ci terrain bu ñuy dem ak moom ci changement il faut ñu imposer ko yenn yi kenn amul droit ba suñ jonn yàlla tey mom rek mu yore fichier électoral bi di ko xool di ko lijjanti di éliminer ay nit mais daaf ñaata lañ éliminer ñëpp ñu mujjee inscrit daaf presque éliminer na leen ça sànnee fële ci mbalit ma loolu moo tax ngeen di gis ay nit yu bari yu ñu inscrire boo yu bees yëpp ñu ñu inscrire ñu ne ñii nekk ñu ci fichier bi parce que daaf moo leen fa effacer daaf moo leen effacer te parce que ñu mujjee inscrire yëpp waa Ousmane Sonko lañ ay jeune la yo xamni dañ leen convaincre pour ñu dem inscrire pour Ousmane Sonko mais ñooñu ñëpp euh, tenu tenu teniru leen en compte dafa dindi sen tur donc bala ñoo dugg sax di wax ay waxu ay ay nañ jappalé ki nañ jappalé ki nañ wax ci fichier électoral bi lolu moy lepp sinon élection yi dina bëri ñuy dem di wara dem voter ji ñu ne la nekk leen ci fichier bi parce que da ngay dem ñu xool sa tournée yow nekkoo fi te pourtant yor nga carte yor nga lépp apte à voter mais dañ naan la nekkoo ci fichier électoral bi kooku na lay def donc comme nu ma koy waxee vraiment mbir yi metti na naqari na trop naqari na metti na lool lool lool lool loolu voilà mais nag bëri na ci loo xam ne du choix wu sénégalais de ñàkk a bañ xeex bi nii wala ñàkk a bañ a def benn at du choix wu sénégalais yi déedéet gars yi dañ leen sëf dañ leen sëf bu mënuñu yëngu ku leen di yënguloo sax yow la ñuy la yow la ñuy en moo tax ay ñoom Ibou Fall ak ñoom ki euh, euh, Akhenaton ak ñooñu ñooñu di leen jéem a yënguloo gars yi yow la ñuy en gars yi dañ leen a sëf suul ay gileem suul ay nag yu ñuul dañ leen a sëf a sëf a sëf ba leen di yëngal yow lañuy ñuy attaqué loolu si ñoom Farba Ngom sëf gars yi saafara ci lac de guerre ga naan saafara gi ba màndi ñu suul ay nag ay junni junni nag yu ñuul ak ay gileem xaatim dóor ci suuf lu nekk lañ leen def depuis boobu benn sénégalais yëngootul kenn du yëngu te koo ci ne yëngul mu noonoo la c'est pas pour rien ñoom ñu naan non xeexatuñ xeexatu déedéet dañ leen sëf dañ leen ko duy bañ ne kañ toog wallaay billahi dañ leen a sëf suul leen ba ñu diis këndëng boo leen di wax sax yoo lañuy ñuy noonoo duñ la dégg mënatuñ def dara dara mënatuñ ko def lépp lu ñu préparé yuuxu ko ba ne dinañ xeex duñ xeex xam nga <laughs> loolu du nen fii lañ wax le 27 le 27 le 27 mu ñëw dëkk bi yëpp gars yi ne salaw yënguwul marche bi passé yënguwul de ñu ñëw ne investiture investiture investiture gars yi de non day fees Macky xëy benn guddi rek nag amul yënguwul dara yënguut liñ leen doon def ñuy fi fippu dañ leen koy def léegi lu ko raw te duñ fippu <laughs> du seen bëgg-bëgg de déedéet du seen bëgg-bëgg ñoom dañoo dem bay ba paniqué naan ay non est-ce que gars yi xeexkat yi demuñu est-ce que gars yi jaaruñu Nicaragua est-ce que gars yi mais bu combat amee ñëpp gis ni fii Sénégal a ngi fees dell ak ay jeunes. est-ce que jaaruñu Nicaragua est-ce que jaaruñu ci géej gi mais dama ne bu combat de lutte amee nga gis la fees dell ci ngay xam ni kon ñii kenn bougé wu fi li nekk Sénégal la génn ak la dem ci kaso ba matu ko un pour cent mais munul bu dee làmb la kenn sëfu leen dañuy dem ci làmb ga bu dee football la kenn sëfu leen dañuy dem ci football ba. ñooy fees dell ci stade di woy sonko sonko namm naa la ngay dégg encore la voilà la nañ fees dell mais bu la waxee acca ñu wàcc duñ ko mun parce que foofu lañ leen sëfee sëfuñu leen ñu dem ci stade yi parce dem ci stade yi sëfuñu leen pour ñu dem ci làmb gi dañ gi dem ci làmb gi ñu ngi fees dell ci fu ñuy fooweeg fu ñuy bégee bu soo buñ nangu leen sonko investiture ba dañ fay fees tepp parce que kenn sëfu leen pour bu ñu dem ci investiture mais dañ leen sëf pour ñu jóg comme nous ñuy def dof yi sëf leen a sëf a sëf boobu duñu dof bu dóor sëf leen a sëf ba dof bi du mun a yëkkati loxo dóor noonu lañ def sénégalais dañ leen a sëf a sëf a sëf ba mënuñu yëkkati loxo dañ leen a sëf a sëf a sëf ba mënuñu sol xeer dañ leen a sëf a sëf a sëf ba mënuñu loolu ay sacrifice yu ñu def la et puis loolu c'est vrai loolu bañ may wax sacrifice yooyu kenn xamul kañ la ni ngi ci sama document yi même pël boobu àndoon ak pël pël boobu àndoon ak lu mu tudd Farba Ngom bu ñuy suul nag yu ñuul yeeg giléem yeeg partout di jël ay saafara di ko sotti ci lac de bi di ko jox gaay gaay di naan ba taxaw toog loolu moo tax boo leen di imposer ay génn leen sax dañ lay noonoo mënul nekk déedéet duñ génn lépp lu ñu programme bu yegsee Macky Sall tere na ko te amul yëngu-yëngu benn dara yëngul léegi est-ce lu ngeen dara même pour dóor ay pot sax problème la même pour dóor pot problème la ba buñu ñuy éliminer Sonko même pour dajaloo dóor pot sax problème la woon ci Sénégalais yi xaw kañ lañ ko gëj def même pour dóor pot le 31 décembre yi ci discoursu Macky Sall gaay dañ doon dóor pot mais légui ñaari pot duñ ko door sëf bu metti la dé xam nga pot mom kenn kenn forcé wu la kenn kenn du la fekk japp la mais même pot gaay mënuñu ko door mais il faut du comprendre affaire fétiche la il faut ñu comprendre que sénégalais bi bonul te bëgg na changement bëgg na changement trop bonul nag voilà mais bu ñu ko jiitoo ci mbartal rek bu ñu ko jiitoo bu ñu jiitoo paak ci mbartal moom day metti waaw con concert concert casserole sax léegi bu dëgër sax mënutu fi am Sénégal mais. yi dañ leen a dañ leen a dañ leen a fétiche quoi dañ leen a fétiche très sincèrement moo tax fu nekk nii am na ñu commencé man damay gis commentaire yi ñu commencé suul Sonko di commencé wax ñeneen non nañ déglu Sonko noonu nañ kii non kële la non kii nay ndeysaan vraiment lu may waxaat mooy comme Macky Sall sa pexe bi réussir nga ko. suis éliminer Ousmane Sonko en personne mais génn ko ne xana mat na Je Ousmane Sonko nga libéré détenu politique yi gars ay un an lañ fa def un an sawaay dafa bari un an ay ño xamni jappolé wo len est-ce que sama frère bi Nangomo, nga un an ay boy yu ndaw nga huit mois neuf mois li nga leen tëjee woon ci kaso bi lan la woon pour bu ñu fi nekk di xeex ngir booy éliminer Sonko ñu bañ fee nekk. éliminer nga Sonko si seen ginnaaw xanaa fii ak une di nga leen commencé génne nag parce que def nga ko ba pare te yëngu-yëngu amul kon mooy wane ni même ñoom bu ñu ñëwee yëngu di am léegi nag def nga sa pexe ba pexe ba sotti na éliminer nga Ousmane Sonko mais génneel gars yi au moins nga libéré Ousmane Sonko dellu ci njabootam def nga li nga li ngay def ba pare li nga lii rek moo la jublu woon ñi nga rey lii moo la ci jublu woon pour pour sonko baña dem motax nga ray len ñi nga gañ sonko baña dem motax nga ray nga gañ len ñi nga dakk sonko bañ mu dem motax nga dakk len Fulbert Sambok Didier Badji ñoo ñëpp nga ray sonko baña dem mo taxon nga ray len ñi nga tejj ci kasso bi sonko baña dem ñu xéxal sonko ngir mu dem ci élection motax nga nga tejj len wa lolu loolu yëpp muju nga ko sortil finalement def nga defa defa defa def ba sonko dematul mais libéré len au moins xam yow matal nga li nga bëggon libéré len ñu wat seen kër yi nak seen njaboot yi mun leen gis parce que un an ci koo xam ni deful benn crime reyul nit gaañul nit sàccul alalu nit fenlul nit nga jàpp ko tëj plus de un an mel ni ko def crime libéral doomu jàmbur yi lillaahi war a suuli mission mat na yow wutoo leneen wutoo leneen parce que yow sa combat lan la woon Sonko kese la woon Sonko kese moo la sonaloon moom nga teg sa bakkan ne du dem da koy yóbbaale dem nga yóbbaale nga ko libéral gars yi ñu dem am seen jàmm am Hannibal Jim ñëw foofu vacance takk fa jabar ba suñ doon yàlla léegi un an libéral doomu jàmbur yi lillaahi a rasuuli ñi ñaan la ko nag ñu dellu seen njaboot yi tuuti bégee tuuti ak seen njaboot yi libéré leen sa mission mat na matal nga ko dem nga yóbbaale nga Sonko lii rek mooy sa xeex sa combat bi yëpp du woon dara mooy dem nga yóbbaale Sonko leneen loo fi bàyyi garaaw mais yow dem nga yóbbaale Sonko moo ne woon moom nga enaloon moom nga jàppaloon moom ngay doon xeex lu ne def nga ko yóbbaale nga ko dem na yóbbaale nga ko kenn mënu ko téye fexe nga ba yóbbu ko ñii ñëpp ndeysaan dee nañ ci ay ñoom Papito Kara ji combattant yi bëri ndeysaan métti na mais nag yàlla baax na waaye daal gaay bu ñu jël lépp naan yàlla baax na yàlla musul bon gis nga pexe yi ñuy def ñoom bàyyeeguñ ko de il faut ñu réclamer fichier électoral bi gis naa ndeysaan euh, euh, Amadou Ba bu Pastef nekk ci jomaay Machallah, allah nit ne peux wax quoi je suis fier de ce gars là il il a la conscience tranquille la tête sur les épaules j'aime ce genre de personne en tout cas c'est quelqu'un qui Sonko war a c'est l'un des gens de Pastef qui me respecte respecter respecté Amadou Ba am nañu ci bëri du ma leen déglu nag ci Pastef euh, ci PASTEF mais Amadou Ba c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps mais damay gis développement il a la tête sur les épaules vite fait am a ñuy commencé à le un fervent défenseur de la nation ñu saaga ko un avocat Ousmane Sonko boo Ousmane Sonko fay ko firtin muy depuis depuis Nous ñu jàpp ko ci benn guddi bu muy wax ne éliminé nañ Sonko saaga ko mais éliminé wuñ Sonko saaga ko way mais am na ñoo xam ni ay vrai traître la ñuy wooyee seen boppu patriote ay vrai traître boolewuma leen sax ci Pastef ay vrai traître ñoo xam ne ay workat lañ yu gaaw a fàtte yoo xam ne ah duñu nitu dara ci moins de vingt quatre heures saaga nañ ci un fervent défenseur de Ousmane Sonko ab avocat boo xam ni talul sax njabootam talul ay doomam du lekk ak ñoom du naan ak ñoom foo ko fekk mi ngi taxawu sénégalais ñi ñuy tëj ci kaso yi te kenn fay ko un franc mu maître Khoureyssi Ba càmbar fàq tëdd Sonko mënoo am ko gën kooku ci benn moins de trente secondes saaga nañ ko ci mais mais des fois gars yi wooyatee parce que ay vrai dëmm am na wooyateekatu Pastef yi nga xam ne ay vrai dëmm lañ ay vrai nooxóor la ay workat lañ te Sonko xam na loolu parce que da ko wax naan <laughs> gaa yi nekk Pastef yi du ñëpp laay kii de. am na ñoo xam ne ñoo raw da ko doon joxe ñi ko wër da doon ñoo xam ne ñoo raw Macky Sall ñu ngi ci man ñoo raw Macky Sall comme ay janaxu bajo yàqkat yu bon ay yàqkat yu bon moom xam na ko Sonko Sonko faawul gars yi de patriote rek mu faala la non aka leen xam aka xam am na patriote janaxu bajo yoo xam yàq rek la ñuy def yàq rek duñu dara ñoo gën a yées Macky Sall ñu ngi ci ñu ngi ci ne wax patriote a mois de vingt-quatre 24 heures de temps ñuy yàqante avocat wu Sonko di wax ay wax yoo xam ne di ko saaga non <laughs> moo tax Sonko du def loolu bari na ci lu ñuy yàq ñuy woote patriote yoo xam ne Sonko du mës a def loolu parce que Sonko sax nawloowu leen dañuy wax ni patriote patriote xam amuñu sax benn benn onde de patriotisme ci seen ci seen bopp yi am na ñoo xam ne dañuy woote patriote nii ñoo gën a nekk xar ñoo gën a nekk xar xar yi barke alxuraan lekkatu ngooñ ak ka ñoo mun a gaaw waxte gaaw ci ñoo lay tàccu tey léegi saaga léegi tey tey tey saaga tàccu la ci suba si saaga sa maam ci ngoon si ñëw taxawaat di la guddi gi ba xam lan nga non <laughs> mais Amadou Ba c'est quelqu'un qui est un vrai un vrai jàmbaar quoi moom rek laay gis ci ay patriotes yi def yëfu dof mu delloo leen mu mbéj seen maam ñu dellu nekk nit seul Amadou Ba ragalu leen quoi am na ñu ragal patriotes yi fii seen wax ju bari duñ la yàqal dara mais mom ça yu ñu génnee di émotionnel day mbéj sen mam mom rek moko ko def le seul leader bu ñimee def parce que di wax di xamal eh, eh, eh, def ça yu ñuy dof dof lu mu yemale len nan la sénégalais war mëna day ñu ko xam ni nga japp ab avocat bo xamni xamni lu muy wax ko gëna xam ay règle ñeneen ñuy wax yëpp ñu xam dé bëri na ay dëgg yu ñu xam dëgg ci sañu tank di défendre ak ñoo ko bëri xam da ngeen fam ni ay ngaaka lañu bëri na dëgg yu ñu dëgg suñu tànk di défendre parce que dañoo nekk ci défense mais bu dëgg desee bu ñu ko waxee ñëpp tëj seen nopp il savait pertinemment ko mag Ousmane Sonko dañ koy éliminer mais quand même respect quand même lu mu la fi lum la fi gontol lu la fi xëyal ñaata doomu aadama la défendre yi nekk ci kaso bi yoo xam ne kenn fayu ko dërëm ngeen bëgg ko fàtte ci seconde parce que wax na ni nii la lii nangam ak nangam ngeen bëgg ko fi fàtte bu ko saga mamam bëgg a wax non mais amna ay vrai jaama nga ci pastef patriote yi ñi woote patriote entre guillemets man ay patriotisme mom duma ko jox n'importe qui c'est pas parce que da ngay def photo Ousmane Sonko man la patriote de dama xam luy patriotisme avant Ousmane Sonko donc du man étiquette bobu duma ko takal ku ne man mom duma ko takal ku ne mom c'est pas parce que da nga def photo Ousmane Sonko nan pas Ousmane Sonko duma la def patriote patriotisme du tiaxan fibre la fibre le patriotisme fibre la un euh, patriote un euh, patriote du saw ci mbedd te sawkatu mbedd ngeen ñu ci bari ci yeen un euh, patriote du jël ay mbuus di lek di ko sànni te ñu bari ci yeen da ngeen koy def un patriote du sacc te ñu bari ci yeen buñu leen fat dal sax buñu leen yobé ci jumaa ji ngeen sacc ko donc man c'est pas n'importe qui la woowee patriote c'est pas parce que da nga bok ci Pastef rek na patriote non patriotisme mo fi jitu sonku te do leen ko jël do leen ko yak do leen ko jël do leen ko yak duñ leen ko nangul ñun ñun ñi dinañ taxaw défendre le non patriotisme du len ko do len ko yak do len ñew ak sen mouvement yàqal ñu patriotisme bu fi nek jiitu len fi jiitu fi sen papa yi jiitu fi seen yaay ngeen bu ko yak ci ay secondes yak mo bi motax merci à Amadou Ba le fait de défendre l'avocat Ousmane Sonko jambar fàq tëdd bu defal lu ne Ousmane Sonko bu ko xeyel gontal ko

patriote tu des fois da ngay patriote la publication nga xamni inconscience grave. Une mi nga daw ci xel mi inconscience grave. mi nga daw ci xel mais day patriote un inconscient ne peut pas être un patriote un inconscient non mënu un patriote On nga am l'esprit patriotique Nous nga am la conscience patriotique mun nga am l'énergie patriotique nee naa la ñetti patriote l'esprit patriotique comme Bobby, c'est patriotique de lire des livres comprendre patriotisme de réciter ay ci xam mais conscience bi am ñoo conscience. patriotique, moo conscience patriotique mon esprit patriotique conscience patriotique Nous nga xam conscience lu patriotisme c'est pas un livre yu muy lire le lu muy dund conscience c'est patriote conscience patriotique Il y a l'esprit patriotique la conscience patriotique l'engagement patriotique On xam ne dafa engagé patriotiquement mais amul esprit amul conscience je dof bi daf ko bëgg rek grec rek affaire bi waaw Sonko Sonko Sonko Sonko Quoi l'amour la yor l'amour patriotique mais amul conscience amul esprit du là dof là non Sonko rek lu Son wax non la Sonko non Sonko non Sonko nous Sonko lu wax loolu la non Sonko non Sonko Sonko Sonko nous la amul conscience amul esprit il a juste l'amour patriotique il faut nous nous nous nous. nous. l'amour patriotique l'esprit patriotique la conscience patriotique benn bokku ci ak sa morom ay état d'esprit lañu ki nga amour la am daf ko bëgg rek mais amul esprit dara wuti fanatique la esprit patriotique ño xamni dañuy lire livre yi maîtriser ko xam mais duñ ci xam nañ ko di da nga ay borom lañ mais amuñu patriotique conscience patriotique nak moy yamale le mo dajale lepp moy ko xamni dafa dafa yew bëgg ko maîtriser limi wax xam niveau Ousmane Sonko yi ñoñu ils ont la conscience patriotique fu dem dañuy fu ñu dem dañuy bokk bu ñu demee Asie dañuy bokk bu ñu demee Amérique dañuy bokk bu ñu demee Australie dañuy bokk fu ñu dem parce que patriotisme am na ci dëkk yëpp fu ñu dem dañuy bokk am ñoo xam boo leen génnoon parce que amuñu conscience bi dañuy réer amuñu esprit bi amour bi lañ am ñun nag lépp moo nekk ci ñun suñu biir mooy biir buy bi moo tax xàmmeewoo kan mooy kan mooy ki nga xam ne dana nan Sonko la fan xëy rek saaga avocat wu Sonko ngay teg say stratégie di xool dan ngay contourner plan bi ñu ñëw rek saaga la man dund naa ko moo tax ma gisee bu xuree si ba dama rey fii ndaanaan yu bëri dundu nañ ko gars yi saaga nañ fi ñu ku ne sans xam sax conscience bi nga yor di xeex di di contourner ay plan di teg ay stratégie di xool nooy xeexee pour rëccal sa waa ji am na ñoo xam ne amuñu conscience bi dañ ñëw rek xool rek ah, dafa saaga soo loolu daf kii soogu sax jox ko ah, ah, saaga ku am bopp am conscience bi dana ñëw ne la waa mais lu tax nga def lii wala lu tax nangam nga toj am na ay bopp ñu am conscience yoo xam mosu ñoo bind dañuy ñëw poser la question nga débattre ak ñoom ngeen évoluer ah ok nii la nii na ok je presse du faux pour avoir du vrai lii laay def dama am ñu may xëcc ñu may nangam ñu comprendre nang toog def teg bari na ñoo xam ne man bu may teg sama plan bari na ñoo xam ne expliqué naa leen wax naa leen ba ci ba wax le journaliste Pape Alé Niang ba wax ci ak euh, Stéphane Kabou ba wax ci ak ñeneen ak ñeneen ba wax ci ak Khoureyssi Thiam basketteur qui m'a toujours défendu devant des gens qui n'ont rien compris fekk boobu wax naa ci ak moom lu bëri buñ ñëw non sa waa ji sa waa ji sa di leen reetaan <laughs> leen sama waa xam na lu muy def de <laughs> sama waa ji ñu non yow yow sa waa ji di attaqué kii sama waa ji xam na parce que xamuñu ni waxtaan naa ceeg ak ñoom. mais man damay comprendre damay xamni ñett yi ñoo am esprit patriotique conscience patriotique ak amour patriotique ñi ñep di saga ni amour patriotique lañ am motax suba gis nga nuñ saagaa waji ji xoolal nuñ saaga nuñ maître Khoureyssi Ba c'est inadmissible mais di di remercier encore une fois Amadou Ba Pastef il s'engage toujours ça yu metté day génn na len dal len yam len lolou Sonko xamone nako parce que bu ko xamulone du chaque jour ça yu génnee dalal ñen ñi chaque jour saa yu Sonko génnoon dalal ñenn ñi ni yéen patriote nan ngeen mën a def fii parce que xam na ni dafa bëri ñoo xam ne am nañ amur bi nag am nañ bëgg nañ ko de bëgg nañ ko mais amuñu conscience bi amuñu esprit bi bëgg nañ ko mais loolu dafa am ci ay taalibe sëriñ kër sëriñ yooyu dem am na am na loolu am na koo xam ni amour bi rek la yor day tëñëx tëñëxi rek di mbëkk ay miir di mbëkk ay poto di kii sëñ bi bu waxee mu tëgg waaw waaw dangam mar tànk yi ci tëdd ci suuf si bërëngu kooku amul amour amour bi rek la yor kooku fanatique la amour bi rek la yor amul esprit bi am na ku ko daq liggéey fuuf ku ko gën a bëgg sëñ bi fuuf set sel xam lu sëñ bi wax lire livre yi maîtriser affaire yi di ko doxalee nu mu koy doxalee kooku du du du mbëkk miir du mbëkk porte lampe sa yu seigne bi wote day set sel tok seigne bi mom la gëna respecter mom moy tok ci ba mbam ba nga xamni dafa am amour bi dof mom mo nek nek mbam seigne bi ko dof la parce que amour bi rek la am amul esprit bi ki am esprit bi tok ci bi lu seigne bi mu ki am conscience bi bi lu bi mu livre di maîtriser di xam loolu mo am ci fep fo dem rek ay nit dajalo fa rek di nga fi gis ñet branche yoy non donc Ousmane Sonko dafa wote xam-xam dafa wote xel dafa wote xel projet da fay am waaw mais projet bobu dafa am nañu bari ñi wax projet bi mais xamuñu dara ci projet bi man bala ma de ñu non projet lañu ñuy defaan du nit projet lañu defaan du nit projet bi ak ci nit bu muy tagu ci loxom ah oui projet bi ak nit bu set bu ñuy teg ci loxoom am na yeneen yéen xam bu ko nit di waxee sax nga xam ni kii amul conscience bi dama ne projet bi ak ci loxo buñ koy teg pas défendre uñ projet rek de projet bi ak ci loxo bu ku ko mérité déedéet duñ ko jël jox ko ab sulaar duñ ko jël jox ko ab koo xam ne amul benn bëgg bëgg bokkul ak ñun sax bo bokkul ak ñun bëgg-bëgg mu yën yow oto bi Ousmane Sonko mooy chauffeur bi. ñu daane chauffeur bi nga bëgg ko jox ko xamni yeen yeen yéen a bëgg a dem Kaolack moom Diourbel la bëgg a dem kan ngeen di yegg pourtant jox nga ko auto bi de nak no projet bi la moy auto bi projet bi la chauffeur bi wacc na mais grawul chauffeur bi na dem fe projet bi la nga ñew jox ko ko xamni mom moom euh, Diourbel la bëgg a dem mais ça va do leen yegg Kaolack donc projet bi ci loxo buy tegu ay waxi dof la ñew rek na projet bi la non projet bi lay def ko ko jox ki nga jox est-ce que patriote la ki nga jox est-ce que bëgg na rew mi.

affaire bi dafa bëri naxante ñuy taxaw di gëmloo ga projet bi la projet bi koo ci laaj cinq cinq laa la wax ci projet bi mënu la ko wax projet bi duñ ko jox n'importe qui ah oui projet bi am na projet yu ko gën a xóot foofu ñu ngi fi <laughs> déedéet yéen Abdoulaye Wade indiwuloon projet wala ngeen foree projet ci Sonko la commencé Abdoulaye Wade projet bu deugur kecc la fi indiwoon projet panafricaniste Abdoulaye Wade panafricaniste yeb dañ ko toppoon projet panafricaniste la fi indiwoon dem fi jëlee touba bi damay nangu port bi damay nangu aéroport bi damay nangu mo mo dàqoon projet Abdoulaye Wade moo dàq bind sax Ousmane Sonko projet jeunes yi topp ko ñepp top ko Abdoulaye bu waxoon stade bi numu day xool leen stade amitié lu mu day Ablaye da ko feesal tap tap tap am ñu duggul kon nga xam ni kooku yor na projet waaye projet kon projet ak nu mu diis diis diis ci loxo yi muy tegu ana projet Ablaye Wade boobu ay robinet maafe ay pluie provoquée ay lac artificiel ay robine ñankatan ay robinet gloria ay guana reva mais vous kan pouvez projet est-ce que vous na ci donc la personne est intéressant moi, Ousmane Zongo, la personne vous bi du projet c'est. il faut que les Sénégalais ñu teel xam balaa ñu leen di naxati bu projet rek ko bind Ablaye mais malgré de na fi ay affaire defewu donc du ay projet bu n'importe qui la personne dafa femme solo porter un projet porter cou porteur de projet un porteur de projet qu'on xam contre vents et marées gum, même si on a boppam ak baatam da koy yanu de ko gum, di porter un projet am te boppam jiital ko ne direct comme nous Ousmane ce n'est pas n'importe qui donc ne jël n'importe qui Nous jël n'importe qui dañuy background nit ki voilà le porte standard qui nga porte standard bi ko dina porter il faut que des fois nous conscientiser parce que am na ay rek te am na ñoo xam ni tamit nit la ñuy wër bu leen nit yi wëree lañuy wax lu neex nit yi rek ah dama ne kër gu ëpp gu ëpp nit ña ngi fay naxante tubaab bi ne si tu ouvres la porte à tout le monde les paresseux seront trop nombreux mais bu fekkee sa kër dëgg rek nga ci wax xàq bil xàq nit yi dañu lay daw moo tax kër yi gën a néew nit ñoo kër yu ëpp dëgg kër yu gën a néew nit mooy kër yu ëpp dëgg wala moom mooy kër yoo xam ni kilifa gi dafa jug kër yu yàmbalang yi dañuy fees dell parce que ku leen di fen lañ fay fekk bu fenee ñeneen ñi woo ñeneen ñi woo ñu fen ñu fen ñu mu neex leen seen nopp yi raay duut ñu mu neex ñu jurgat seen nopp yi dem seen yoon kenn du leen wax dëgg moo tax kër yi di fees ak i fenkat parce que fen dañuy bëgg a dikk kër yi néew nit nii nag parce que benn waay bu fa nekk boo xam ne yàlla rek la gëm yàlla la yaakaar xool ci kenn dëgg la leen di wax. combat bi dañ koy teg ci loxo yi set wecc projet bi mi ngi fi mais duñ ko jël di ko larguer n'importe qui pouvoir dafa am doole. ànd ak nit ne veut pas nga gëm lu nit ki gëm ànd ak nit taxu nga gëm bu doon loolu la dama ne Ablaye wàdd ak Moustapha Niass duñ fëggantey bulon ndel dafa plainte lel lel balu ndel ndel bal lel ablay wad, ak euh, ki nga xamne moy mooy euh, Moustapha Niasse ci ay plainte lañ mujjé premier ministre la ko defoon ño àndoon dañu mujjé reyante dañu mujjé ablay Wade ak Macky Sall dañoo renté et cetera et cetera donc cela ne veut pas dire que kii dafa ànd ak kii rek non sa waay nit mun nañoo bon bu ñu àndee def ay calcul xoolal mu toog nekk président affaire yi yaatu ngand mu mun ay commencé koo kii protocole yi taxaw ñu armée bi taxaw policier yi taxaw ñu armée mu xool gu xool droit waaye sa waay mu fàtte la mu fàtte la nga ñëw di wax projet mu ne la non man boobu gisuma ko nii nii laa ko gis parce que nekk na ko ba pare dóor na la. Maka abla ada nyum mu àndaloon ñëpp da leen mu dee këdd lo di xeex waxu projet ñëpp da leen mu dee damal demal pouvoir day nit de defa fois cela ne veut pas dire dañuy jël projet bi jox ko n'importe am na xam boo leen ko joxoon ba gars taxaw protocole yi taxaw avion avion yi taxaw gi ñëw ñu poincé oh, xoolal <laughs> da nga naan est-ce que kii xam ko ak euh, Ousmane Sonko ku leen waxoon <laughs> dañuy rayante ku koy gëm daaw ci heure bi ku waxoon Barthélemy Barthélémy Ousmane Sonko fi la ne ku koy gëm <laughs> alors kenn musu koo gëm dañoo jappone dañuy dé ñom ñaar xol la niñu mujjé donc c'est pas n'importe qui ku ngeen taxaw diñu ko forcer quoi waaye nañ ko jox ki nañ ko jox ki nañ ko jox non say ñun ñun dañuy am rek sañu bop bu ko leen waxone Barthélemy Barthélémy ak Ousmane Sonko dañuy dinañ dem bay rayante di wax di affaire bi metti tang jeur ñu ki jaar go kenn du ko gëm pouvoir du caaxaan sa waa ji doo ko jox n'importe qui du caa du caaxaan duñ ko jël rek di ko jox ay ay nit yu ñu leen neex noo parce que dañuy wut seen bëgg-bëgg non Sénégal bu desee ba des du ay patriotisme ak ay PDS ak AFP ak LDMPT boobu Sénégal lay doon képp ku ko bëgg a teg ci loxo bu ñu wóoluwul wala xamuñu ko ñun ñooy ñun ñooy doon sa premier ennemi parce que ñun Sénégal la ñuy xeexal. waaw waaye ñu bàyyi kenn mu koy saax-saax di ko jox ku ko neex waaw waaye Sénégal la lànk nit di ko jël di ko jox ku ko neex waaye di ko jox mel ni ay ndonnoo maam ay def na jig yi def na mel ni ku toog nii rek lekk dem duus ñëw ah, ah, jël jël jox ko kii lu ñuy bañal Macky Sall la bañal ñeneen a ñeneen kenn du ñu joxoñ ku ñu gëmut kenn du ñu joxoñ ku yareel Sénégal kenn du ñu joxoñ ku fen Sénégal te képp ku ñu ko forcé dinañ xeex yow luñ ci am jël képp ku ñu forcé bandi dinañ xeex yow luñ ci am jël képp nag ak ku mun a doon duñu mus a suufee sañu àq njureel ba doomu aadama juddu fii di ñu forcé koo xam ne day yàq réew mi wala dafa yoral réew mi wala dafa fen réew mi wala dafa sàcc réew mi wala dafa yoral réew mi duñ ko nangu dinañ lay jox sañu bakkan ak lu ñu am dinañ ko ci def ba nga xam ni ñi ngi xeexal kii ñi ngi xeexal kii kooku amuñu ci ndey amuñu ci baay xooluñu ci doomu aadama xooluñu ci doomu aadama boobu bu boobaa la patrie ou moor la la patrie ou la kon projet bi dañ koy teg ci loxo bu wér loxo ku dul wor góor bu ànd ak Ousmane sunk ci mettit ci naqar ci bànneex ci lépp moo tax ñu war a défendre Jomaay Fay kooku la ñëpp mun a taxaw wax ne Jomaay Fay wala Guy Marius Sagna buñ fi toogee ak nu mu metti metti duñu mus a wor duñu mus a bàyyi ginnaaw pare nañ pour jël Sénégal jox ko Ousmane Sonko dem yi ñooñu moom mun nañ ñu wóor ñun parce que ànd nañoo moom ci mettit bu ne ànd nañoo moom ci naqar bu ne bu ñuy toj oto yeeg yooyu gii Marius moo taxawoon di téye Sonko ànd ak moom di dóor yi lacrymogène muy xencu di sëq di ànd ak moom di di metti lépp da ko dund ak moom te musu ko trahir musu ko woon musul daw musul deltu ginnaaw musu ko woon ginnaaw musul gëmm ci mettitam ku ci mel ni Diomaye fay bu depuis impôt et domaine ba suñu jonn yàlla te bu mu xamee Sonko ba léegi mi ngi moom muy metti muy neex ba tey mi ngi ci kaso ndax ànd ak Sonko yee ces gens là ñi ñi mën a leen jox projet parce que danaan ñii ay Sonko lañ ay sonkiste lañ

de bonne foi ku bëgg Sénégal ku ko wulu du la joxoñal ko yaakar ni da ka yakal du ko joxoñ parce que Sonko Sénégal la jité ko mom Sénégal la jiital intérêt Sénégal la jiital ko intérêt calculé wul dé Sonko bu joxoñee ni calculé parce que bu kooku toogee euh, gars yi c'est que ñoo jël pouvoir jox ko Sonko pouvoir ni Sonko dafa gëm Sonko gëmul pouvoir gaay ñoo japp ni Sonko ay calcul la nek di def ni ki tok après mu daané gis nga kuy tok mën na tok sax bu ko daané fa Sonko ne ko non bu ko daané gars yi xamuñu sonko de <laughs> dafa bëri ñoo xam ne dañuy tëñëre xamuñu sonko barke alxuraan sonko faalewul pouvoir safu ko dara dafa gëm Sénégal mais sonko nit boo xam la nit mun na falu sax jomaay fay falu xoolal ne xaaral ma def nii sonko na ko non non continuer ko dama bëgg a gagné pouvoir bi ci man sama bopp dama bugg a gañee pouvoir bi bëgguma ñu ma koy lege bu doon sonko la sax la la wax pour ñu pour ñi xaar sonko def ay mafia ak ay ki daane la lii après ma ñew ak ay yoy ñu def sen bop yi ñom xamuñu sax sonko réellement xamuñu conscience waaji ji parce que alxuraan nit dina ñew wallahi la la xolal bu jomay fay ñëwoon bu ko bayyi sax sonko daan ko no jité ko ba say mandat jeex donc nekkul ci ay dil du ko defal du ko def mukk senegal du poignarder dans le dos mukk senegal nekul ci ay dil nawul ci ay mafia te wax na leen ko pouvoir ak sama mairie bi ak sama kër laa yemale kon kuy xaar Sonko ci ay dil ak mafia ak ay jaay toog kii nii kii jël mu toog ak yooyu xoolal boo ñëwee sunk dalay lay bàyyi ak say cinq ans ànd ak yow gunge la da ko bëgg a jël comme nu ngi ko nit di jëlee dem élection jël ko gagné ko moom mu xam ne sénégalais ñoo ko choisir mu dem yoonam buy jël réew noonu la koy jëlee man maa la wax takkal téere yow mi jël sa bopp bi def ni ay mafia Sonko mafia la day def lii def lii na non Sonko du genre boobu du genre boobu du dil te xamul nu ñuy dilee loolu dil la kii gagné ba pare après kii bàyyi kii ñëw toog na yow ay dil la Sonko nekkul ci dil jógul ci dil xamul dil ku koy xaar ci dil di nga xàddi pour ñuy commencer di def seen bopp yi loolu fi ku fi gagné Sonko day respecter sa magistrature ànd ak yow bu nitam nga muy Diomaye Faye keneen ku mu mën don doon day ànd ak yow da ngay jité du lo yakal mais duko nangou duko du jël ci say fokati ko ci say loxo euh, ñu né Sénégal ki lañ falon après ki xadi nanga affaire dil yoy Sonko ku ko ci di nga xadi pour xamul wallahi lazim pour ñu xamul dëgër na bopp dëggu na lu mu la wax da koy def dëgër na bopp dëggu lu mu la wax da koy def dama koy xool ci sama bopp nit yu ko jege kam kaamil bu ñu may wax sonko dama ciy gis sama bopp moo tax man ay waxu sonko duma ci werante parce que cent pour cent la ci man cent pour cent dëgër naa bopp lu ma la wax dama koy def bu ma la joxee nopp jàpp ma li nga wax de li ma bëgg laay def te sonko ñëpp ñu ko jege xatan loolu lañ may wax dama waa ji dëggu na jub na waaye dëgër na bopp mais lu mu jàpp ci bopp bi boo doon wax ba suba fii lay jaar génnee fii man leen mais loolu mos na ko wax sax ñu ne ma voilà nee na moom booy wax nii day déglu ah, waaw waaw oh, oh. man def boo ma laajee benn nit bu ma xam laaj ma benn kilifa wala nga dem laaj ma benn caat booy wax ak man ni ma ne ah, ah, waaw boo leen laaj dañ laa la ay eh, da koy def da koy def da koy def ngeen lu tax ñu ne non dégluwu la de day pour nga gaaw a pare rek il est comme sax danaa un un mais da koy def de ñi ma xam dëgg laa la wax booy wax ma ne un non da da ngay gañe nga fekk da ngay dégg balaa ngaa tëdd dégg ne def naa ko parce que li ma gëm laa nekk fix focus ci dara du contre vents et marées dama koy def bu géej gi doon dama koy def bu si doon dama koy def Sonko nit la du du ay mafia ay dil ay dafa gëm lu muy def xam ko nekk ci mais dëgër wow le détourné lu la wax dana mais day xel nit yi dafa respecté nit pour l'affaire de kii nga xam ne moom mooy Habib Sy am ñu koy ñu koy sax assimilé ak Sonko <laughs> déedéet Habib Sy Sonko choisiru ko sama gars yi Habib Sy Sonko choisiru ko bëri na ñoo xam ne xam nañ Habib Sy nag parce que Habib Sy pour wax leen dëgg Habib Sy moom buñ fa yeggee ngeen xam kan mooy Habib Sy maire de Linguère ci PDS Habib Sy poste moo tax mu bàyyi PDS bu Abdoulaye Wade daanoo daf na moo koy jiite gars yi ne doo ko jiite foofu la jàppante ñoom ci la bàyyee poste moo ko bàyyiloo foofu Habib Sy moo nekkoon directeur de cabinet Abdoulaye Wade bi Abdoulaye Wade di rey douze personnes yi nekk conseiller nekk directeur de cabinet am moo ko doon force pour mu def troisième candidature Habib Sy mii nous on était là pour tirer. tiré Bali tac, nous tàkk ñuy rey Diop était là Conseil spécial du président de la République directeur de cabinet de WAD. On na ci ñu personnes yooyu bokk na ci ñu rey Diop Abib Sy na une licence de pêche une mise de la pêche des infrastructures rek ñun que bu baax kan une nga xam ni moom nee na moom mooy moom mooy porteur de projet bu Macky Sall la suite logique de Ousmane Sonko de euh, Asafurla gëmul Ousmane Sonko la suite logique de Abdoulaye Wade xam nañ ko bu baax nag du tey du on n'est pas euh, dans la dernière pluie on a été là avec lui mu metti woon loolu ñuy xeex ak moom bay bëgg a donc. pour ñu foog ne Ousmane Sonko Ousmane Sonko choisir ko deal bi lan la woon Ousmane Sonko moo waroon dem ci parrainage yi député yi benn moo ci moo ci doon manqué moom mooy maire de euh, ñu dem wax ak maire de Guédiawaye mu accepte mu nekk léegi treize treize Ousmane Sonko dafa waroon dem ci parrainage yi Diomaye fay treize yi njëkk yi. Euh, élu yi yóbbu ko beneen beneen treize bi gii Marius Sagna la woon noonu la demee woon beneen treize bi Guy mari Sagna woon léegi nag gaa yi gis ni kon waa Pastef fi dañoo aay ci moom mbir yi Sonko dem ci Sonko dem ci parrainage Diomaye Faye élus ko yi euh, Guy Marius Sagna élus locaux yi ñu gis ni comme kële moom dafa bëgg post muy Habib Sy mu commencé siisu parce que moromam yépp dem nañ bu dee ku jigéen ki Aïda Mbodj dem na pour doon candidat Khalifa Sall dem na pour doon candidat waa PUR dem nañ pour doon candidat euh, ñëpp ñi nga xam ni euh, mali Gakou dem na pour doon candidat donc ñëpp dem nañ moom moo fa desoon donc ñetti poste yooyu bu ñu ko séddooyee Sonko dem parrainage ñaari ñële séddoo affaire yi dootul am dara loolu la commencé di siisoo ko ngeen ngeen ngeen comme Sonko dafa mën a moom tam ndeysaan comme bëggul kenn frustré wu buy ànd ak yow du du doon kuy ànd yow di la fa loolu moo tax mu bàyyee ko bàyyil ko ko mu dem parce que mag la ab paa la bu bu bi yi fekk mu retraité loolu moo tax Sonko lem wañaar loxoom sacrifié wu bàyyi ko moo tax ay député dem parrainel ko moom mooy ñoom. Abbas ñom sulay euh sulay xomalan Biram sulay ay ñeneen ñi Sonko ko goré la Sonko du wor des fois sax mu bayyi li mu wara lek jox la mu dem bay sax nga joy xif mu jox la koku moy Ousmane Sonko lolou moo ñi di jël sen bakkan yi ci ñi dee ñi gañu parce que dañu xamni gor gor bi yombu ta am buñ ko ñaké ñak nañ lepp parce que yalla yu yi du ci bind lu bari loolu motax muy yabbi sax bi jox ko ki nga xamni mom moy euh Habib motax moo tax wax na di jouer nan ay bu Sonko bokkee man duma ma ak yu kenn xamul parce que mom xamoon mom xamone na bu baax ni waji ji mi ngi mi ngi mi ngi teg escalier Sonko pour bu mu bok ni la mbir yi demee Sonko mo leen gëna xamni xam ni il fait partie du système mo le gëna xamni xam ni wa PDS la moo la gën a xam Habib Sy mii bokk na ci sàcc milliards yi buñu nekké PDS fi bokku na ci ñi nekk xaritu ak Macky Sall bu ñu PDS xam na bu baax donc koku pour ñi assimiler Sonko ak ki nga xamné moy Habib ko tooñ non Sonko ki non Sonko xamné ni ki c'est un systémiste

bu muy ànd ak Habib Sy moo la gën a xam ne ñii pur produit système est-ce que mus nañ ko changer mukk est-ce que mus nañ changer trajectoire am mukk est-ce que mun nañ changer mus nañ changer li muy wax mukk donc kon nga xam ne ànd ak <laughs> ñii taxul ñu changer la de moo tax ba daaw desee dem nañ seen yoon ba dem jotee ñoom ñëpp a dem wëri seen yëf ànd ak Barthélemy Dias taxul mu def doon traître mu nga ne woon focus ci lu mu ne donc kii ku gëm la ku xam tamit li muy def la du ngaaka du dof maîtriser na mbir pour wax rek ñi nga xam ne dañuy commencé di wax naa non li choix Sonko bi non dafa def erreur na non du choix Sonko du choix wu Sonko bu ngeen xamee ko noonu bu desoon ci Habib Sy rek ñu xeex ko nëbbuñu ko kenn Habib Sy bu deen moom la rek non dinañ ko xeex ba naaw lu ñu am jën Habib Sy bu deen moom kese la non <laughs> du man rek de dina gis ñu bari ñu taxaw kon di ngeen gis kuy Habib Sy <laughs> waa PDS sax ñooy génne dossier ak ñoo xam Habib Sy bu doon asi Habib Sy rek a fi des non du am dara waa PDS ñooy génne dossier yi génne dossier yëpp teg ñoo ñëkk a ak moom génn ay na ko mais yow yow yow yow yow nan la la ñuy mën a porté yow ñu munuñu la porté yow nga sàcc fii yow kon abib Sisi si boppam wa PDS rek bo len baye ñu wili pande ko ba du saf dara parce que xam nañ ko nak neko na ak mom te bokku na ci bilan sat yi bokku na ci bilan crime yi ken mënu ko raxas ken mënu ko effacer way ah e on e ñi ngi assimé li ñuy wax te ken mënu ko dindi deug na neena man mola bu dess ni abib Sisi. kese dina ko xex xex xex ba lu ma am jël même buma ci wété moo la gën a Sonko la gën a xam kan lay jox projet ba mu porté ko moo tax bu ñëwaat déglu ko boo ko dégloo di nga gis di ngeen gis donc kon les gars malgré lii am na fi mais on resserre les lii nag am na fi mettit la naqar la kenn rafetluwu ko mais danaa leen xamal dara on resserre les rangs on lâche pas l'affaire Sonko nous donne président il est éliminé mais l'esprit de Sonko régnera en maître le patriotisme régnera en maître l'idéologie sonkiste régnera en maître donc le projet patriotique ñu ngi koy yar ba léegi ñu ngi koy porter malgré tout pour ngeen xam ko bàyyiwuñ ko sànniwuñ ko incha allah dinañ changer système bi incha allah dinañ changer système bi pour muy leer la man nag. comme nu ma koy waxee neew ma ciy détail bu may wax ku ma xool xam ne du ma détaillant man dama gëm li may wax nekk ci te chaque jour dama ci am dëgg man nekkuma ci détail ay benn nit bu taxaw no mais mun na non mais ñun ñun Sonko 2024 nangam ay waxi dof gis nga ñun daanu il faut ñu teel a il faut am ñu xam ni am nañu yàlla mayul xel mais ci ñun lañ bokk ci njaboot gi lañ bokk. am nañu yàlla mayul xel am nañu yàlla mayul xalaat am na ñoo xam ni gëmuñu sax yàlla am na ñoo xam ni même bu ñu bu ñuy dund dara sax ñu ko gëm am na ñoo xam ni ñoom dañoo ay fenkat lañ fen bi dem ba doon lu pathologique dañuy fen sax gëm ko di fen di gëm seen fen loolu loolu yëpp dafa am am na ci ñun donc am na ay ñoo xam ni dañoo pathologique ci li ñu nekk dañ ba légui ñu éliminé Sonko ñom ñi ngi tok di won non ay bokku 2024 mais <laughs> da ngay comprendre lolu mëno retourner dans da ngay délo waji koku dafa am psychologiquement dafa dafa dafa atteint té man ñoñu mënu walen fajj sociologue la mais mënu ma faj ñooñu yàlla ci bopam sax amul unanimité té amna doolé bi mën ko mais dafa ko yalla né dama la bind pour ngay xalat né borom xel yi laay waxal <laughs> loolu yàgg naa ko wax keroog dégg naa Barthélemy Dias di ko wax loolu wax naa ko bu yàgg nee na yàlla ndeem dafa bind doomu aadama yëpp nee na waxumaa ñëpp de nee na hey borom xel yi laay waxal kon am na ñu ñu dul waxal de am na ñu yàlla dul waxal donc yàlla mi bind nit yi waxul ak ñëpp du ñun ñoo mën a wax ak ñëpp lu yàlla amul ñaanuñu ko am yàlla mi bind mënul wax ak ñëpp kon ñaanuma yàlla am lu yàlla amul ci nit yi donc ñun mënuñu wax ak ñëpp li ñuy wax gëm nañ ko xam nañ ko maîtriser nañ ko ñu koy wax te juumaguñ ci ku xool suñu trajectoire boobu ba léegi xam ne juumaguñ ci donc ñu nga xam ne nag waaw yàlla nañ leen ñi nga xam ne nag amuñu dara ci seen bopp yi wala yàlla moo tënk seen bopp yi tëj seen bopp yi ñooñu ñun munuñ munuñu tardé si seen tardé munuñu delluwaat ginnaaw leen xëcc munuñu si dara. am na ñoo xam ñoom nee nañ Sonko 2024 nañ toog xaar de moom ci boppam 2024. am na recours nangam nañ toog xaar ko mais ñum xaaru ñum ñi ngi continuer donc encore une fois les gars on lâche pas l'affaire le candidat n'est plus son Sonko mais l'idéologie sonquiste, dañ koy continuer et ça régnera en maître l'idéologie sonkiste président bi fi nek un sonkiste lay président bi fi nek amul idéologie du du du du du pastef lay don du patriote lay don du PDS du euh socialiste du donne wa PDS du doon aj du LDMPT président bi am 2024 sonkiste lay son sonkiste point sonkiste loolu lañu gëm patriote lay don loolu la gëm donc ba légui dañuy combattre nek ci ba partout même bu dee Sonko Sonko léegi moom dafa bokk ci suñuy rang yi bàyyiwul de bokkutul en tant que président mais ñëwaat ñëw na si suñuy rang yi ànd ak ñun te ki ñuy fal en deux mille vingt quatre sonkiste lay doon cent pour cent idéologie sonkiste idéologie sonkiste sonkiste ñun loolu lañ gëm sonkiste du keneen soxlawuñu waa PDS recyclé soxlawuñu. PES recyclé soxlawuñu LDMPT recyclé soxlawuñu AJPADS recyclé soxlawuñu euh, CDP garab recyclé soxlawuñu ci loolu lépp aux poubelles nouveau esprit nouveau combat nouvelle vision patriotique sonkiste mom la ñuy teg fii Inch'Allah, mu neex wala mu donc l'idéologie sonkiste triomphera au soir du 25 février 2024. L'idéologie sonkiste triomphera au soir du 25 février 2024, Inch'Allah. Vous avez dit que vous avez ko def ci seen xol yi nañu focus continuer ci nek. dama président sonkiste sonkiste patriote combattant souverainiste am mbaam paay am mbaa paay dëkk bi paayee ko yàq ñoo nekk ci justice bi ñoo nekk ci politique bi ñoo nekk paayee ko yàq ñu tàmbale 60 ans jëm kaw ñoo yàq réew mi ñi ngi ci justice bi ñu am 60 ans ñoo éliminer Sonko ñu ko élimine paayee yàq suñu réew mi ñoo ñu tardel paa yi ak maire yi doublon yëpp yi la ak paa yi doublon yi maire ak du ñëpp nak mais doublon yi maire ak paye la inconscience paye nek ci euh, justice bi di rey ak a rek retraité yi 60 jëm kaw ñoom rek Macky Sall ki ñooñam merci paye merci Khalifa Sall merci Habib Sy merci Aïda Mbodj merci jërëjëf bu ngeen di nek ci politique bi judduguñu ko ci wax mu ne 74 la commencé. PS la commencé ba suñu jot ni ñi ngi fi ku commencé 74 ñun tuddaguñu ba légui ñi ngi nek ak yeen ko ci gis Habib si bo démé ci mom 73 la commencé néna PS Amadou Ba mii PS la tambalé 72 ñun ñëpp judduguñu ñoo ñu ñëw di ñëw di ñëw ba nek ak seeni moromu dom di leen bëgg nax ba ngeen tàmbalee juddagu ñi ngeen dem juddu mag jang ba am jabar ba am seen ñun ñi seen moroomu doom ngeen bëgg ñoo nax ñi dem ba mag ba day ni inama ba yor jabar yi ki doom ngeen bëgg ñu nax merci pa yi le les suga daadi di jëf les mama daadi les les les mama madre mia jëf amon ngeen fi lebon lippoon amon na fi dan am amoon na ku fi tuddoon Khalifa Sall amoon na fi ku fi tuddoon euh, euh, Aïda Mbodj amoon na fi ku fi tuddoon Habib am na ku fi tuddoon Macky am na ku fi tuddoon Abdoulaye Wade léeboon luppoon amoon na fi daan am amoon na ku fi tuddoon Amadou Ba merci jërëjëf jaraw lakk jeunes yooyu ngeen bu ngeen di tàmbale ñëw ñoo màgg tey may leen ñu tuuti may leen ñu lillahi wa rasuli tuuti ñu xool ba xam jeunes yi léegi ñu jël relève bi ñu xool ba xam jeunes yi am nañ laa teg sur les épaules est-ce que mun nañ euh, jëmale réew mi kanam jërëjëf kontaan nañ ci yéen seen liggéey rafet na ba ngeen tàmbalee judduguñu dem nañ tey ba jur ba jural leen nii sët may leen ñu jàmm ak salaam ngeen seetaan ñu ñu jël relève bi liggéey ko ngeen xool ñu mën a def différence entre pas yi fi nekkoon man de seen carrière ak jeunes yi nga xam ni ay patriotes lañ souverainiste bëgg réew mi kan moo ci mën waaye place à la nouvelle génération moo tax soxlawuñ fi benn pas benn soixante ans du fi toogati Khalifa Sall am na soixante retraité Habib Sy am na soixante retraité Aïda Mbodj am na soixante retraité Macky Sall am na soixante retraité Amadou Ba am na 60 retraité ñi ngeen paa yi yëpp 60 retraité doy na bu doon liggéey sax retraité ngeen merci jërëjëf ay borom karaw gu ñuul la ñuy wër merci jërëjëf soxlawuñ borom tent yi soxlawuñ borom tent yi soxlawuñ borom ñuule yi merci borom wéef yi jërëjëf merci borom ñuuleel yi merci borom pantere wéef merci borom pantere euh, euh, nu mu tudd ñuulal jërëjëf jërëjëf albarka jaaraama c'est wéy c'est seen seen seen merci beaucoup donc comme nous ñu koy waxee une alternance générationnelle de nouveaux esprits nouvelles visions. ñu jëlale réew mi fi mu ne ci guute gi yóbbu ko kanam incha allah donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di mastaw di leen mastaw bu baax ci li fi am ci naqar gi ñuy dund jamono ji li ñuy partagé muy lu metti ci ñëpp di leen ko mastaw bu baax a baax di leen wax ni lii mun a laver l'affront mooy incha allah am ko pas si tu Idriss Seck wax nga dëgg mel ni Idriss Seck jërëjëf merci donc li laver l'affront won ni Macky Sall def metti nañu nakari nañu té duñ ko faté mukk ci aduna moy 2024 bi inshallah ñu fi système bi yépp bu xaj du ay bëgg ay jeunes yu dul taw yu dul yu bu ñu taxaw le retrouvailles de tous ceux qui se sont exilés ay ñoom Ngagne ba Touré ay euh, Tonkara, Tunkara ay ñom ñëpp ñu exilé ñëpp ñi nga xamni seen papa ak yaay Sénégal ñu namm leen bëgg leen le retour des exilés ñëpp la libération des détenus politiques la libération de Ousmane Sonko la libération du peuple sénégalais nous sommes contents. l'esprit patriotique di régné en maître le souverainisme l'espoir de ñëwaat les mutilés ñi gagnants. ñaanal ñi dé ñi nga xam combat bi nous ñu nous justice nous avons Inch'Allah, il y a dara. Donc on ne lâche pas l'affaire, les gars. Mets dans la main, on ne lâche pas l'affaire. On continue ce combat et on gagnera ce combat, Inch'Allah. La main dans la main. Nous nous mettons, mettons, mettons, si nous sommes joyeux, si nous sommes nakaroutaï, si nous mettons nous taï, si nous regrettons taï. suñu suñu déception wu tey buñ ko jooyee ba pare ba pomp suñu rongañ nañ gën a yokk fulla nañ gën a yokk fayda nañ gën a bëgg mbir yi nañ jàpp nit on va laver la front def nga ñu ko mais dinañ fayu Macky li nga def dinañ fayu dinañ siggil Ousmane Sonko dinañ ko sagal dinañ ko suturaal dinañ ko gañeel au nom de nos martyrs au nom de nos emprisonnés au nom de nos exilés dinañ siggil Sénégal yëkkate ko drapeau bi ca kaw muy flotté képp ku dund injustice ci loxoy Macky Sall ñu fayee la ko ñu fay la ñu attel la incha allah te loolu ñun ñoo ko mun a def nañu góor góorgóorlu ba fay suñu martir yi nañ leen fay nañ leen xeex ba ñu am dëgg ci ñii leen rey ñu jàpp leen assassin yi Nous avons ba ñi les mutiler ñi exiler les ci bi ba droit ba ñu faire ba donc les gars on va laver l'affront et nous disons à Macky Sall on va laver l'affront dinañ fayou. Macky Sall dinañ Fayou. ni dinañ wallahi dinañ fayou. peuple sénégalais fayou lepp liñ ko teg ci nakar ci metti ci injustice ci sàcc ci fen ci ray ci tej ci toroxal lepp dinañ fayu inshallah on va laver la front ce peuple est debout ce peuple taxaw na on va laver la front yagoutul dara yàlla nañ ko tal fekke ko tu verras dinañ fayu dinañ fayul Sonko dinañ fayul ñi nga tëj ci kasso yi ay at dinañ fayul ñi nga dinañ fayul ñi nga gaañ dinañ fayul ñi daw gàddaay nga yàq seen liggéey tas seen njaboot dinañ fayul ñi nga taal seen kër yi dinañ fayul ñi nga xam da taal seen oto yi dinañ fayul ñi nga toroxal ci seen kanamu njaboot yi dinañ fayul ñi nga tiire ay ballu fetal ci seen oto yi dinañ fayul ñoom Fulbert Sambou dinañ fayul Dija Badji dinañ fayul François Mancabou dinañ fayul bépp ki nga xam ne dafa subir oppression ñi nga opprimé ñi nga teg injustice dinañ leen fayul incha allah prendre dinañ len fayul bientôt inshallah le vent dina tourner et tu verras lolou nañ la ko wax ngay xam ko djel ko bay ci xel inshallah kon les gars buñu ñu suñu deug ba paré suñu nakar suñu mettit Ousmane Sonko est avec nous ensemble nous vaincrons et nous gagnerons ce combat inshallah au nom d'Allah au nom de la victoire au nom de la vérité, nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. On n'a pas perdu. Même si on a perdu la bataille, on n'a pas encore perdu la guerre. Et nous gagnerons cette guerre. Nous le gagnerons. Cette guerre, nous l'avons gagner. C'était juste une bataille qu'on a perdue, mais on gagnera la guerre. Et Macky Sall aura affaire au peuple sénégalais. Dans moins de deux mois, Inch'Allah. Dans moins de deux mois, Macky Sall, bu les gars la main dans la main tous ensemble ñu tout Nous émotion bi ñu bañ di des santé, loolu du yëfu góor bu dara Amé, dal ndank. bu ñu c'est nous dans nous bu nous dóorante bu ñu gaañante ki leen def lu metti du maître Khoureychi ki def nous du Mola du Guy

lépp luy bañante lépp luy soxor ñu dindi ko sànni na le leeral xol yi parce que yàlla nee na ci xol yi set yi leer yi rek laa xaj ci xol yi set yi lu leer yi laa xaj bu ñu setalee sañu xol yi ànd bokk nekk benn dund injustice bi yàlla dina ànd ak ñun te dinañ gañe kombaa bi billaahi wallaahi wa taalaahi ñun kenn ci ñun du ennemi la nga bëgg la bëgg la nga bëgg la kee bëgg loolu la kële kële kële kële bëgg donc buñu duggé fi ñu tégal ñu fofu dañuy arrière xoraat fenen dugaat fenen allah kulli al dinañ yegg 2024 dinañ ko am ndam inshallah ci kaw système bi ci kaw système bi bu soobee yalla c'est l'année du changement ça se sent même bo xolé ni mbir yi di doxé nga xamni ça va changer donc bu len def ci seen xel yi sax ay Macky Sall Amadou Ba day gagné Amadou du gagné fukk Amadou gagné Ba mënul gagné kenn loolu mun musuma ko gëm Macky Sall dëpp élection yi ba Amadou Ba gagné gisuma ko munul nekk bu ku kenn votelul munul gagné ku kenn votelul munoo fexe fexe fexe ba mu gagné donc kooku moom xaw ma kan munul gagné kenn kenn mënu ko gagné munul gagné koñam munul gagné kenn. donc man musuma xalaat Amadou Ba gagné fi nit munu fi gagné kenn wallahi man sax bu ma sunk joxoñoon maa gagné Amadou Ba mun naa ko jiñ ci dara yi Seydina Mohamed bu ma Sonko joxoñoon ma gagné Amadou Ba munul gagné këram munul gañe waa koñam munul gagné kenn man kooku c'est le cadet de mes soucis terew ma nalaw bu dee Amadou Ba kese ak Macky Sall ak George Bush ak euh, euh, Clinton ak bu ñëw booloo sax munuñu gañe kenn

bari na ay infiltré da ngay gis benn page mu am photo Ousmane Sonko nga dugg ci biir waa ji musul partagé daray Ousmane Sonko même ñu koy identifier sax ay APR la ñuy identifier boo xoolee xam ni kii du waa Pastef boo xoolee xam ni kii ab infiltré la ak yomb a xam page yu infiltré xoolal rek mun na ci def Ousmane du am benn partage amul ku ànd ak Ousmane Sonko te doo partagé. amul kenn ku ànd ak Ousmane Sonko te doo partagé Ousmane Sonko doo partagé ay live am doo partagé li mu doon wax doo part donc page buy infiltré boo c'est pas parce que daf ci def photo Ousmane Sonko duggal ci biir vérifier boo xoolee rek di nga xam ne du Ousmane Sonko. parce que mënul ubbi page am te te mënul mësul partagé daraay Ousmane donc infiltré yi mooy ñuy def photo Ousmane Sonko mais musuñu partagé dara Ousmane Sonko wala dara ku ànd ak Ousmane Sonko wala kuy xeexal Ousmane Sonko donc dafay yomba xam. donc bul gis ko def photo Ousmane Sonko rek mu waxat affaire nga ci use sa use sa brain use sa xel xalaat xel loolu rek lay jëriñ xalaat xel xalaat rek lay kon nous dans nous tous ensemble nous continuer combat bi et on gagnera incha Ah, tu, n'es pas infiltré, je le sais. Tu ne partages pas, mais aussi tu ne dis pas du mal. Tu ne dis pas de mal sur Ousmane Sonko. Quand, quand je parle de ça, je parle des commentaires. Nous savons que commenter des yak. Mais yo, mun nga nek ben undercover do do infiltrer do partager mais do yak dañuy wax ni ñi yak yor photo Ousmane Sonko te musuñu partager dara sont pas de Ousmane Sonko

donc pas ñuy infiltrés, infiltrer c'est très facile donc les gars euh, comme on on continue ce combat on continue ce combat et on gagnera le qui régnera en maître sur cette terre en 2024 j'y crois weekend week dañ koy def incha Inch'Allah. Puis, and love sama gars yi di bientôt Inch'Allah, Le rek leneen fi tamit ko wax wax euh, di janvier 2024. un prisonnier du nom de Abdou Sow s'est évadé de la prison de Liberté 6 Abdou Sow ñu koy nëpp nëppal ba suñ jonne yalla tay état bi musu ci wax journaux yi ñu ci bind administration pénitentiaire musu ci def communiqué di Sénégal West Afrique que y des prisonniers, prisonnier pour tej perpétuité bu def crime bu recc ci prison ou Liberté 6 Camp pénal depuis le premier ñu koy ne pouvons pas ko donc le Sénégal est en danger un prisonnier du nord de Abdou mingi ngi circuler biir Sénégal perpétuité lañ ko tañon criminel la dafa ray ay nit mingi don doon liggéey ci boulangerie bi boulangerie Liberté 6 la don liggéeyee prisonnier la di liggéey ci boulangerie bi le jour du combat de euh, et l'autre jour où les gens étaient un peu concentrés ci combat bi muy liggéey ci biir four euh, prison bi ci le en complicité avec chef de cour bi rëcc na ñu koy neub diko yëgal sénégalais yi ñu def beaucoup attention jour combat Boy modulo amna Ben bandi bu tuddu Abdou Sow bu rëcc prison Liberté 6 comme bëgguñu euh siw ñu neubatu diko ko di ko yeugal diko yeugal tout le Sénégal di wax attention attention ben danger mi ngi circuler moy camp pénal Liberté 6 amna évasion le 1er janvier muy un prisonnier qui a perpétuité do liggé été ci boulangerie bi recc na en complicité avec chef de cour bi nga xamni ne ñoo bokk benn saw ben sante ñu ko saw saw le chef de cour de la prison camp Liberté 6 xamna bu baax li xaw coow nak mi ngi ne cour ci prison liberté 6 bi jour combat bi le chef de cour saw mom mi collaboré ak mom bàyyi nañ prisonnier ba amna ñu ne deux cent mille jox bàyyi na prisonnier ba dawna na ñu koy nëbb ak lak lakal di leen ko yëgal ngeen partager ko partout pour mu siw pour ñu yeko ndax gouvernement a mi ngi administration pénitentiaire bi yëg nañ ko bind ñu ko journal ñu ko ci média nous ko fenn koy ñun danger suñu nous di di dox Sénégal etc., etc., il faut ñu nous aviser donc le prisonnier Abdou saw di woo état bi ñu def ci ay jéego di woo ñi nga xam ne mooy administration pénitentiaire bi ñu def ci ay annonce ñu def ci ay euh, ñu wax ci voilà foofu laa yemagum pour l'instant asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu peace enamaw ana Moustapha Cissé Lo ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ñi woon ci nguur gi dara bu ñu jàpp